kon mbokk yi jërë ngeen jëf euh, comme ni leen ko waxee rek ba léegi nii ñu ngi fii ci Touba Ngën Saar ci màggalu xasaayat bi nga xam si waa daara Touba euh, euh, xam si fi lay wàllum exposition bi am ñu koy dana ak seen njàmbaar dana leen xiir ci ñu daw wëri ci li nga xam si ni moom mooy njàngalem sëñ Touba di nga def ci ay làkk ay wolof ak nasaraan yu bëree bëri gi képp koo xam si xam-xam yitteel na rek boo dikkee lépp loo xam si bëgg koo xam ci yoonu murit ak li nga xam si ñoo Cheikh Cheikh Khadim da nga ko ci da a fekk kon mbokk ñi ngi taxaw ak sëñ Fallou moom mi nga xam si xëy na suñu borom moom la def mu féete fii mu dikkoog ñun ndax sëñ Fallou gis nañu fii ci exposition bi li ci mel ni euh, autorité yi nga xam si suñu borom defoon nañu amoon relation ak Cheikh Khadim waaye tamit euh, ñi mooy sëñ Touba ak alxuraan li nga xam si sëñ Touba fekk na fa alxuraan li ko alxuraan man may ak moom lan la defal alxuraan kon nan nga mën a dikkeeg ñun ci yaatal liggéey bu am solo bi nga xam si am ngeen yéene euh, nuyu di leen ziare di baalu àq di leen tatagal ci bis bi nga xam si ñëw ngeen fekk ñu fii gannaaw bi ñu waxee loolu pare xëy na di di wax leen rek am na benn exposition boo xam ne si ñu ñoo ko def ngir du ko waajale di ko waajale bis bi ndax Serigne Touba ak xasida ak li nga xam ne si du defaloon na ko xasida ak li nga xam ne si xasida moom la ko may ndax wa muy alxuraan mooy mooy li nga xam ne si comme bu buñ xoolee suñu côté ndajoor bee ne dañ say fekk Serigne Touba mu ci tagg alxuraan di ko ci wax tag-tag yoo xam ne si di wax tamit njëriñ njëriñ njëriñ alxuraan li mu mën a def defal nit ki kon loolu rek suñ ko suñ ko ñu ñu buñ ko jariñoo ñun taalibe yi wax dëgg yàlla daanu mën a gën a fonk alxuraan bu baax a baax jox ko cëram ndax suñu jëwriñ kat muy Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul fonkoon na ko gën fonk goo xam ne si ba tegoo na ko foo xam ne si tegoo fa dara kon ñun taalibe yi war na si ñun ñun tamit ñu mën a taxawal loolu noonu jëm ko fàttaliku tamit jëm ko jëmmal si bis bu nu mënti dem ñu jéem a jëmmal alxuraan jëm ko joxaat a yitteem ba ñëpp def seen i seen pasteef ndax ndax Serigne Touba radiyallahu anhu daf ñoo defal lépp daf ñoo may lépp kon war nañu si war nañu si suñu bopp lépp loo xam si moom la bëggoon moom ñu jëm ko saa jàppale jëm ko saa dimbali ngir ngir siiwal lool noonu ngir ngir ngir mu mën a dem suñu kanam comme li ñu wax ni Serigne Touba radiyallahu anhu comme comme yamini alaha yamini yamini alayha daynu xatin xawaaridan li xilmati xilli zimali nasa xibbi moom la waxoon kon loolu noonu rek ab bor boo xam ne si da ko doon fayal ki nga xam ne si mooy rasulullahi salallahu taala alayhi wa sallam kon loolu noonu rek day day tax ñun ñun ñëpp jéem a ñu jéem a delluwaat amaat Pastef man si loolu rek laay laay wax ndax di delluwaat amaat amaat Pastef ndax Serigne Touba bu seetloo xëy na alxuraan na xaw na fee rafle trop xaw na fee rafle trop si nit ñi koy jàng waaye xëy na bu ñu ñëw si bëri bëri bëri bi mel nii ñu si wane li nga xam ne Serigne Touba moom la defoon bindoon ko ci wàllu xam le wàllu xamle alxuraan si wàllu jàngale alxuraan kon ñun ñëpp war na mën a delluwaat positif comme ni nga ko waxee woon rek amaat positif lool ci alxuraan ñu ñu jàll si beneen point mooy mooy Cheikh Mouhamadul Mourtada Cheikh Mouhamadul daanaka mën na na wax ni mu ubbi moo ubbi jumaa ji nii waaye ba mu ko ubbee tamit dafa fekk ni ñu jox ko daara ji mu muy muy daare al azhar bi bi nekk fii nii daara boobu na biñ ko sosee ay côté 2003 yaakaar naa la biñ ko sosee ñu dem benn at ay 2003 2004 2005 si leen sos daayira ansaaru diin al islaamiya Touba Ngën Sarr te ban ko sosee tamit ñun bi ñuy commencé mënoon a wax ni ay ñeent lañu woon wala juróomi nit te boobu su naan jàng xasida ci classe la daan nekk ci biir classe la daan jànge la daan jànge xasida yi ñu ko daan doore lam ñëpp du misal Moustapha lañ ko lañ commencé woon ba kenn ku ne mokkal ko waaye xëy na mbiri Serigne Touba ak mbiri yàlla subhanahu wa ala ni muy def rek mooy mbiri Serigne Touba amul tànk tànk gannaaw tànk kanam rek la am loolu nag mooy dox di dox di dox ba mu agsi fii nii kon la la ma Mouhamadou Mourtada waxoon rek man laay fàttaliku gars yi Cheikh Mouhamadou ma gars yi dañu ko laajoon da tur daayira bi mu leen nañu ko tuddee ansaaru diin ndax in tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum kon suñ su fekkee su fekkee ñun ñëpp ànd nañ ci ànd nañ si si si aay boobu noonu kon ñun ñëpp wax dëgg yàlla dañuy dañuy mën a di mën a suñu biir ndax wa taawna alal biir wa taqwa wala taawna alal ismi wal udwan kon loolu la alxuraan loolu la alxuraan wax te loolu Cheikh Mouhamadou Mouta teewoon tànkam kon képp koo xam ne si taalibeem nga wala da ngaa bokk si daaru ansaaru diin war ngaa mën a doxee noonu. jërëjëf sëñ Fallou Barane wax dëgg yàlla loolu nga wax lépp kon mën nañ koo gis fii ndax li nga xam ne sëñ Mouhamadou Moutala moo mu nekkoon jàmbaar lislaam ku ne xam liggéeyam bi nga xam si liggéeyal na ko Cheikhul Khadim euh, xam si jot na ko fa nekk muy solo bi nga xam si def ngeen ko loolu lépp day xam le ni yéen ñi fa lañ Cheikh Mouhamadou Moutala euh, doon na ni yéen a ci yoon boobu yàlla bi si cat dugg yàlla suñu borom def ngeen continuer ko di ko gën a taxaw ay at yu bëree waaye lii wax dëgg yàlla dafa am solo solo ndax lu ci mel ni euh, ay exposition di leeral njàngum Cheikh Ahmadou Khadim di ko jaaral yu bëree bëri képp koo xam si journée xasida bu yitteel na la da nga mën a jàng alxuraan jàng xasaayit euh, boo xéwloo ba noppi suñu borom bu mayee sa tànk woyof da nga mën a jaar ci barab yu mel nii mën a gën a yokk sa xam-xam gën a dëgëral dëgëral sa pasteef ci Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul waaye bis bi dañ gis ni ren exposition bi gannaaw ni nga ko waxee euh, am na thème bi Cheikh Khadim ak alxuraan autorité yi nga xam si suñu boroon defoon nañu seq ak Cheikh Khadim ci relation yi jotoon am ak moom ñu ñu xam ne bis bi ren ji dañ ko dippee sëñ Massamba Mbacke sëñ Massamba Mbacke nekkoon koo xam si rakkoon la Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul waaye am fu mu ko féete woon ndax euh, euh, euh, kii nga ni mën a dikkal ci sëñ Massamba diggante sëñ Massamba ay seen i jaar-jaar ak seen i seen diggante moom Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul waaw Cheikh Ahmadou Bamba ak ak ak ak xasida yi waaye Cheikh Ahmadou Bamba ak ah, comme zona xasaayit bi ak alaxatu bi bi nga xam ne si moo dox ci sëñ Massamba Mbacke ak ak yoonu Serigne ndax sëñ Massamba Mbacké suñ ko waxee daal day day mel ne ni Cheikh Mouhamadou sëñ sëñ Massamba Mbacké moom lépp loo xam ne Serigne Touba du ko bindoon moom moo ko maas te taxawaay bi nga xam si amoon na ko si si wàllu murit bi taxawaay amul solo la ba tax na boo gisee ngën saar gii nii mën nañ ñu si ëpp taalibe sëñ sëñ Massamba la ba mën mi di wax yow nii sax taalibe sëñ sëñ Massamba la ndax xam ni sëñ sëñ Moussa sëñ Moussa Massamba daaw fi jóg daaw fi jóg daf daan ñëw ba nga xam ne si sa ba mën naan wax ni fii ñu barab bii ñu ñu nekk nekk nii mën naa wax ni barabu la ndax wax dëgg wax dëgg yàlla sëñ Moustapha daan na fi ñëw amoon na fi taalibe amoon na ñëpp ak ñoom relation ba nga xam ne si daanaka mën nañu wax chaque 15 jours doomu sa doomu sëñ Moustapha sàmba dina fi def dina fi ñëw def ab daayira kon xëy na loolu noonu ak ak ak ak ak alaaxa bi nga xam ne si moo moo dox si si si waa kër Moussa Moussa Samba ak waa Ngën Sarr xëy na loolu moo tax ñu duppeeku ko waaye daal li si mën a wax daal mooy sëñ ma Samba Mbacke daal benn benn nit la ko nit la koo xam ne si nit ko am important la si yoonu murit macha allah sëñ Fallou comme ni nga xam a si ba da ngay dégg ci xisa yu baree bari yoo xam si da nga dégg bu ne sëñ mi mas naa wax sëñ Massamba Massamba Ndangam la ñuy moom lañ jotoon a jël ci wàllu exposition bi mu noon Seexul Xadim ak Alxuraan waaye ci li dëppee bi nga xam si mbokk taal bi waa Touba Daaru Ansar Din dëppee nañ ko sëñ Massamba bés bi mu nekkoon ren seen neuvième mbokk yi xam naa ci kanam tuuti dana dikk ak yow ci yeneen jotaay jërë ngeen jëf